Asalaamaaleykum amis internautes, bonsoir et bienvenue. Nous sommes en direct sur Senclic TV, en différé sur www.senclic.com, le meilleur portail d'information en temps réel où que vous soyez au Sénégal et en Afrique francophone. Mbokk xaritu internet yi yéen ñu ñuy seetaan ñu ngi am mbégte kontaan tey ñu ngi fii Grand Théâtre euh, ñu ngi fii Grand Dakar tey Big Town fekk si benn hip hopeur bi nga xam ne kenn dootu ko présenté ci milieu hip hop galsen muy Prophète. bi nga xamante ne defoon na ko muy téléphone joxe numéro téléphone ngeen seetaan bi profité ngeen ni xam na gëj ngeen ko gis ça fait trois ans donc mu nekk ci kawam di làqatu mais tey dinañ xam lan moo waralal trois ans yi fan la prophète nekkoon ak lan moo doon stand by bi donc mu ngi ñëw nag indaale ak affaire yu bees yu extraordinaire yi nga xamante ne ni tey euh, milieu hip hop Galsen dañ koy soxla mu ngi am ay surprise yu bëri yi nga xam ne mu ngi koy préparé tey prophète dinañ fi toog waxtaan ak moom waxtaan ci ci ci staff bi ci entertainment bi ci projet yi nga xam ne mu ngi koy waajal seetaan leen vidéo bi ñu ñëwaat c'est maintenant Rési When I'll my baba ni nga bañoon dégg laay saaga nii ratatata gën rëy fi gàtta looy bëgg di dégg may saaba seen fooyi léegi mooy dàkk ngeen bàyyi jooyi en rakk kuru axlu brique bi trou bank si brique bi neel dip elzo ak ngaaka neel bug si jiili ak aada mag si nii fii si taan may papa ay maami victory omg ak kui ivi e crazy like ay góor jigéen taaja bon rek ñoo fi ne faya bon easy for life kon foog sa saay fa man jay sax maa ko mën ah soose bi tey de moo sa ngeen mi bu pole na ñu wax ko nga tëdd ba jaxanti bañ ana ñu ko fi takkal ay garaadu colonel wàññi wax bi tey jëf yokk joob bi as lëf bril ngam mi rëy na booy wax ji doy na booy waar bi laaj na as jëf my pro na booy tey di lu cooli bëri my boss pënal game bi teg jëngal seen bi ñooy yëngal brandi by force bro ba tey di teg para joob bi seen los pël sami seen bi 361 65 4 bi rek mos na booy tëddi lu cooli bëri may bos pënal dem bi teg zëngal seen bi ñooy yëngal loo ba tey di teg rajo bi seen noos xoolal 77 371 65 4 rek nga yaakaaroon ni dee lépp li ngeen defoon lépp te ngeen yaakaaroon ni day naat ay ngaaka blende bu ñuy xëy di tuur di yóbbu sama tuur may jeew el phénomène lu fi sabay am ba nga war ñu wan yaa réew di teg rek di duur rek boy soo añee doo reer di mic rek toog day rek seen chaise ba xanaa du fees toog leetu leen fi dekkil yar karaw mel ni akil 371 154 nga woote gis fi Hercule doppaloo dina pressu la Balla Gaye Eumeu Sène na polone yaa ngi fi saaga di dagal te pourtant bu ba resu na wàññi wax bi tey jëf nanu yokk joob bi as lëf ku ma ba saaga dina tot nga bëgg a xam ne bandi day jëf my pro no boy te di lum sooli bëri may boss pënal game bi teg jëngal seen bi ñooy yëngal brandi by force proba tey di teg rajo bi seen los xoolal sonni seen bi 371 mos no boy te di lum sooli bëri may boss pënal game bi teg jëngal seen bi ñooy yëngal brandi by force proba tey di teg rajo bi seen los xoolal sonni seen bi 371 4 bi rek mos gis ngeen ko noonu li mooy vidéo bi nga xamante ne ni moo presque mën nañu wax ne moom mooy dernier clip bi nga te ne ko muy ego trip bi nga xamante ni classe na ci hip hop Galsen mais tey ci li ñuy ñëw ñu focus tey mooy euh, trois ans d'absence yi nga xamante ne ni prophète defoon na ko fan la nekkoon mais dañ koy nuyu wax ko asalaamaaleykum prophète asalaamaaleykum tey dañ la fekk si big town sa koona yàgg sa gaa yëpp waaw mm. Yeah, salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum West Africa it's your homeboy Pro aka Boy from BIG maa ngi nuyu ñu nuy seetaan ñëpp di la nuyu tamit bu baax a baax. mais sinon naka mu Grand Dakar rëpp na de. waaw waaw fii mooy Grand Dakar <laughs> nii la mën a mel waaw fii mooy suñu koñ <laughs> yee men gis à chaque fois ngay prôné Grand Dakar Big Town Grand Dakar Big Town la ban mooy secret Grand Dakar quoi. waaw xam nga hip hop hip hop avant tout mooy li américain bi di wax da am base quoi hip hop hip am foo jógee ñu ne comme par exemple bu ñun ñëpp ne Grand Dakar bu ñu nee rescapé ñëpp ne parcelle bu bu ñu waxee box bu seen kumpa ñëpp ne Medina hip hop loolu la quoi da am base da ngay am foo foo jógee ba pare lu wax mooy li américain bi di wax nga tegal nga teewal sa gox soo ko dox waaw ñun loolu la ñuy dox quoi ñun moom day ndamoo Grand Dakar bu baax bu baax. Hmm. ok loolu la mooy représente sa compte mais prophète su ñu ñëwee tuuti ci sa bu ñu defee benn résumé tuuti sa jaar-jaar 2008 ba 2010 dañ la doon gis nga tëll def benn carrière bu extraordinaire bi nga xamante ne yaa ngi koy def ci nekk benn xale bu ndaw ñu lay gis ngay partagé grand yëpp ku ci mel ni Simon xam nga ku ci mel ni Gaston Rescapé bon euh, Fou Malade ak yeneen gars yi bugsoog yooyu noonu nekk jeune nekk au devant de la scène nekk xale te instant boobu noonu bon partout ci région yi fu nekk ànd nga fa grand yow kese la ñuy gis booy ñu jékki-jékki. toog benn stand by gisatuñ la déggatuñ la. waa si diggante bi c'est vrai jotoon naa si def ay def voyage xam nga et tout demee noonu man sama jëm bopp ma neexuma ma toog 3 ans 4 ans génnewuma bi benn projet kenn dégguma si dara dara dara dara comprendre nga mais hip bi moo am ay réalité boppam loolu. loolu il faut ñu xam ko ñun bay nekk booy di rap di dugg si game bi ba nu ñuy amee tur ñun mosuñu dem fenn ne ni ko ñaanal ñu bay rek wala xam ñu koy takk wala di ko sangoo mais mais après ngay dem ba si biir xam ne ni que dafa nekk ay réalité yoo xam ne dafa existe même pas sax si hip hop bi kese muy mais sa sa place liggéeykaay kii fu muy joobee keneen ak keneen fu muy joobee réalité yooyu dafa am comme lu ñuy wax ba booy dem nag ba ba xamoo foo jëm da ngay dellu fi fi nga jóge waaw parce que affaire yu bëri yoo xam ne bon du ma si jaaraat quoi is bo wax wax naa si xam nga dal na ma si diggante bi surtout si trois ans yi mooy yaa ngi dem yaa ngi voyagé yaa ngi faju yaa ngi def ay affaire noon noonu xamunoo ne que loolu amoon na si gémmi quoi ñun xam nga dañ doon tey suñu micro di rab rek yaakaar si su talent kese quoi waaw mais naka de gém am na yeneen affaire yoo xamante ni mi ngi si bon instant bi bon loolu daal ñun ñu ngi si comme ñoom ñu ngi si nekkee ok du ci jaaraat moom moo ko wax waxoon na ko donc prophète ci résumé ci clip bi ngeen seetaan sànq yéen a koy dégg mu ngi dem mu ngi faju ce qui veut dafa feebaroon donc ci biir vidéo bi ngeen seetaan mu ngi sax cité ñi nga xamante ne ñoom ñoo leen ko def mais tey duñ ci ñëwaat tey dañuy focus ci absence bi ak projet yi nga xamante ne mu ngi koy def je pense que tey tog na ci plateau yu bëri wax affaire yu bëri mais tey ci li ñuy gën wax ana entertainment bi gars yi nga xam ñoo nekkoon ci ginnaaw prophète ñi daan gis manager bi gars yi doon coiffé accompagner prophète tey gisuñ ci kenn quoi hmm. waaw gars yi ñu ngi fi ñu ngi fi <laughs> dem dëj bi gars yi ngi fi <laughs> waaw ñu ngi fi ba tey dem dëj geng bi waaw gars yi moom xam nga danoo nekk ay gars yoo xamante ni ñun banañ ànd ay ay booy la noonu quoi du prophète moo nu boole loolu ay Kéba Seydi la ay Mamadou Jemme mooy suñu sunu tour yi quoi après le prophète ñëw ngay dégg ay dem dëj di dégg ay perkal fii di dégg ay naaq yu demee noonu ay ba nekkee booy la nu ànd quoi ànd boobu du mos a dañ waaw ni ngeen ma gëjee gis si si kii si gem bi looloo waral nga ngeen gëj gis gars yi mais jusqu'à présent ñi ngi jàpp si liggéey bi ñi ngi ànd ñi ngi fréquenté ñi ngi dugg si sama business bu baax a baax sa sama projet yu may waaye ñëw génn yëpp maa ñoom ñoom ñoo ko defandoo quoi xam na lépp lu may def dara changé wul. def nga parcours hip hop bu ris jaar ci loxoy grand yi riche te yaa ngi fii yaa ngi fee yaa ngi fële c'est-à-dire lan la duñ la gis fenn nga juste dañ lay gis fii benn instant tuuti ñu gisaat la Kélé gisaat la ak Simon ba quelques instants ñu gisaat la ak Fou Malade ñu gisaat la ak Gaston Rescapé fii c'est problème. bousement bu bari boobu loolu la rek xam nga gars moom liggéey bu la boolee ak ñoom da ngay liggéey ak ñoom quoi liggéey moo nu boole job na ak Gaston an an noonu voyage fu nekk xam nga job naa ak euh, si Simon xam nga euh, job naa ak euh, ay ay grand yu bëri ay malal xam nga ay ay xumaan ay dégg baabu rapajo demee noonu et tout bon sa parce que danoo waroon liggéey quoi mais tey ba mu jeexee jeex na ñëw naa toog toog naa sama koñ xam nga peut-être su ma su instant bi li li gën a focus li mu li gën a nekk sama maay mooy jem jéem a xool Grand Dakar nu amee ay yeneen profet parce que tamit ça ça ça fait ça fait pas plaisir tey euh, ba fi Rapadio jógee ba tey euh, prophète kase ngay dégg si si Grand Dakar comprendre nga tey bon maa ànd ak sama rakk yi xam nga ñu si mel ne ay ñoom Eminem damay noonu xam nga ay ay ñoom Takatsuka xam nga ñoom laa gën a nekk di liggéeyal quoi parce que am boo boo xoolee lu gënoon tax ma ànd ak ma ànd ak grand Euh, am na lu ñu yokk si sama carrière am na lu ñu def si man loolu laa demoon jëli ñëw naa toog sama koñ loolu laa bëgg a def si sama rakk yi di ñëw. Hmm. donc ci côté expérience nga wax mais bi nga ànd ak ñoom di def ku wax musique dina xam ne business la entertainment la tey euh, durant bi nga ànd ak ñoom tey lan nga ñu mën a wax lu palpable loo xamante ne réaliser nga ko et puis xam nga exploité nga ko ci sa ci sa ànd ak ñoom. ah boo xoolee si sama si sama ànd ak gas su ma juumul mooy ba may génn si si hip hop feeling bi de après gas moom moo gën a tax sous région bi xam ko prophète comprendre kon je pense que loolu euh, bon dama koy remercier quoi parce que bon genre genre grand yooyu dañoo nekk ñoo xamante ne ils ont mis du goudron sur ma route xam nga wax dëgg fa yàlla jël jëlee naa si ñoom lu bëri muy sama mag tamit rescapé jàng naa si moom lu bëri xam nga ñoom daal mënu ma wax si ñoom lu dul easy quoi ma maa leen shout out ñu wax ci ci ci hip hop actuellement parce que toog nga trois ans yi nga xamante ne ni donc kenn déggu la kenn gisu pendant trois ans yi nga toog lan nga doon préparé looy waajal. waaw ah, ah, waaw su surprise rek xam nga comme dab mais mais daal lu ma leen wax mooy mooy ni que ku si liggéeyul woon ku si liggéeyul woon bu yaboo nga xaar waaw te sax danañ xaar lu bëri ndax ndax ñëwaat naa waaw. <laughs> <laughs> waaw. ok dañ la gis sànq daw nga question bi dañu la gis c'est-à-dire dañ la tàmmoon ak yeneen gars ci sa côté entertainment bi ci management bi ak yooyu mais gars yooyu gisuñu leen am nañu écho comme quoi que ñii dañu dem ci politique bi ñii dañoo voyager xam nga donc c'est quoi le problème wala dañu tas wala lan moo leen boole en général groupe hip hop bu tasee rek xaalis la wala nu mu fa demee noonu. loolu laa lay wax sànq nee naa gars yi ñu ngi fi waaw sa parce que li ma gëj a gis loolu loolu moo tax xam nga waaw xam nga nga gëj a gis gars yi bien bien vrai que nag instant ku si nekk yaa ngi si. yaa ngi sa projet bopp quoi ñii xam nga takk nañ jabar ñii toxu noonu Grand Dakar ñii ngi ay Kër Massar ñii ñi ngi feneen ak feneen mais comme lu ma la wax dara changé wul ah dara dara dara xam nga am na benn groupe kii WhatsApp bu ñu ubbi ñun ñëpp bu tudd dem dëj demee noonu waaw ñu ngi déggante any any time xam nga même lu nu gëj a gisee gisee gisee gisee xamal nañu lépp sama loon xam du ma def dara waxuma leen ko ñoom tamit xam nga lu mu mën a apporter si sama carrière ñu ngi koy def ko dara changé wu hmm. léegi du téléphone nga joxe sa numéro téléphone donc yaa ngi ci classe hip hop nouvelle génération bu bëri ba donc yaa ngi ciy wax ne comme quoi sax donc dañ la liggéey yóbbu la ci sëriñ donc ngaaka ak yooyu joxe sa numéro téléphone est-ce que bi nga joxe sa numéro téléphone woo nañ la am nga ay rapport yu la woo ci sa numéro téléphone bi xam nga wala ay fan saaga la wala. waaw waaw mënul ñàkk mënul ñàkk parce que tey boo boo saaga ngaaka ngaaka dafa am ay fans yu ko bëgg comprendre am na ay boo yoo xam ne day yëkkat seen téléphone ay fans ngaaka la nu ci saaga la comprendre tey ngaaka bu saaga pro du ñàkk am na ay fans pro yoo xam ne danañ yëkkat xam nga seen seen téléphone woo woo ngaaka fay wala ngaaka rom si mbedd mi ñu fay yooyu yëpp dal na ma nekk naa studio di kii di enregistré ay ay ay booy di di ma woo di ma dama saaga mais yooyu moom ñun nañ ko min xam ñun si mbedd bi lañ dëkk xam nga ay ay saaga ndey moom loolu xam nga mis nañ ko quoi xam nga bon par rapport ak action boobu euh, du du du question ni que fit moo tax ma jël vidéo bi tuddee ko sama numéro téléphone boo booy sama numéro 77 371 65 44 xam nga non du fit quoi xam nga du dara parce rek dama leen bëgg expliquer man quand je be je vais dire je ne blague pas waaw loolu kese la woon quoi. <laughs> dañu am benn écho quoi dañu daje nga ma sama yaay dafa am lu ma wax. bu xaayee ñor na waaw waaw. waaw dama nekkoon si ay tolof tolof yu méttee métti. barki Cheikh Awa Balla gars yi nii xam nañ si dara. comprendre nga ne sànq wax naa la ko nee naa neexul xam nga samay morom di génne ay projet demee noonu man ma nekk di si àll yi di wër di di nangam sangam génnewu ma dara neexul. sama yaay ñoo toog mère ndiku mu ma kee waaw mu ne ma waaw mu ne bu jeexee jeex na te jeex na tàq loolu laa wax jeex na bu xaayara ñor na bu xaayee sax bëgguñu dañu yor xomb dañu yor xomb mais mais mais gars yi lan la gars yi gars yi la wër nii ñan lañ gars yi gars yi ñan lañ gars yi. Ah, waaw euh, ay doomu Grand Dakar samay négociations dañuy partagé lu bëri. xam nga dañuy déggante dañ ma yokk xalaat xam nga dañuy fréquenté xam nga ay ay ay gars yu baax lañu bien bien vrai que ba bokkuñu koñ nga sama koñ mii mii nee si kanam kole cosaan bi mais da ngay gis any time suba suba ngoon ba ba ni may tëddee ba presque maa ngi fii ak ak gars yi waaw parce que ay gars yi naaj suñu ba pare yu gëm sa prophète yu gëm sama carrière tam tamit quoi ba pare yu gëm sama ñëwaat si game bi yéey maa nga leen ñu saaw daal bu baax gars yi yëpp mais mm. soo génnee ci hip hop Galsen ci beneen koñ di wax prophète par exemple man damay dem fenn di reposer naan non booy prophète pourtant booy bi dafa taxaw booy dafa mën a rab booy bi technique mais dañ naan la yii booy xoolal bul laal c'est quoi le problème bandi la ah. ah mais. Eh, mais est ce que boobu waxul pro bande la si raw est ce que waxul loolu. waaw bande la si maag <laughs> waaw waaw waaw. xëy na peut être ñoom dañ daan fekkee concert pro concert prophète su yëgee su plaît après ñu dagg affaire yeeg yàq courant yi tas courant yi xam nga waaw. loolu la woon rek loolu yëpp booy la woon mais tey màgg nañu quoi léegi xam nga affaire. day gën rafet daal waaw xam nga hip hop moom booy tàmm di ànd ak gang bi wala wala wala wala yu demee noonu xam nga gars yi pour ñoom bu ñu demee rek war nañu salteel wala xam nga ba pare du ñaaku quoi mun mun naa am problème ak ak faron ñu ñu dayee am na yoo xam dafay am comprend mais mosul yegg fu métti fii ci quoi mosuñu génneel kenn arme nu gis ñu yor goon xam nga mosuñu gis eh, si yenn débat yi xam nga si si yenn détails yi xam nga peut-être nekk na ak suñu quartier xam nga nu mu mel day xaw a yomb nga ko collé nu étiquette bandi parce que Grand Dakar boo ko waxee ñoom ñëpp xam mais mais tey ah, ah, yaa ngi gis gaay ba ma fi ñëwee xam nga gisoo fi dara gisoo fi tax ku taal joint si mbedd beeg demee noonu comprendre nga mais mais peut-être ni que suñu passé suñ suñu magu démb yi luñ euh, leen fi dañ ba tey quoi mais fi moom xam amul dara ñun moom yaay xam nga jaamu kese yaa waaw yaa salaam quoi. ok loolu lu may seede la Grand Dakar amul dara man damay toog ak prophète ba 4 heures du matin grand bi waaye sama brodo bi xam na ci MC la donc. Euh, maa ngi seen sax xam nga Latir Mbaye ngooñ mu ngi fële démb nga ma ko mujj a présenté mu yeneen gars yi nga xamante ne xoolal gars leen ragal di leen tudd fu ne. dañ ciy tëgg mbalax wala ko mën a affaire yooyu business bi dem parce que dafa changé pendant trois ans yi réalité yi fi amoon ak léegi yi fi est-ce que yaa ngi yaa ngi bàyyi xel ci loolu yaa ngi focus ci loolu. Ah, bien sûr mais man moom dama nekk rapport euh, kii rappeur boo xamante ni man topp ma tendance quoi waaw man j'ai été toujours classique xam nga si loolu laay des doon quoi. waaw man yi yi booy di def nii peut-être nag dama siy déglu benn booy booy bu am talent la muy Samba Posi. moom moom respect quoi. waaw moom moom nice. Dip Doundou gis Dip Dip ndaanaan la Dip rappeur la bànni la waaw sama waay la. <laughs> ngaa ko blende. waaw ma wax si moom dara waaw waaw. <laughs> waaw xaar lu bari <laughs> kooku amara lay comprendre. Ah, ah ah waaw waaw. dina comprendre léegi. hip hop affaire de clan la wax nga ko léegi affaire de koñ la. donc nii nga waxee nii mo man dama dégg dama gis ni menace la est du doon affaire big town affaire de Guédiawaye. booy boobu man du ma yem ak moom si si menace kese booy xam booy boobu moom moomu ñëkk a déclenché guerre ko comprendre te man damay guerre ak moom waaw man sama kam kamba bi ngaa ko da see lu bëri sama sama trois ans yi ma toog ngaa ko dafa ma amel dafa dama tee loo xamante ni man dama ko moom man loolu loolu laay nangu si moom te ngaa ko moom xam na comprendre mii jéem a dem seeti ay ñoom baxaw nag ñoom baxaw di moo ay booy booy mi bu la wooyee di na nga ko jël ñoom ñëpp nañ si génn respect laa lañ jox sama bu baax a sama mag la ñoom si boobu ñoom ñëpp ku si ne yaa si jéem a dox mais si génn quoi. waaw Ngaaka Ngaaka li mu bëgg mooy naaj sa diggante ak moom. mënatu rafet mënoo mënatu rafet parce que tey man du la nëbb gaañ koy ko defaraat mënoo ko defaraat. jën mu nëbb mu gaañ ku la yóbbu police da nga àndat ak moom. kon ku la yóbbu sëriñ di nga ànd moom ah waaw mi ngi noonu nag. <laughs> maaraay dañu dañu garaaw de maaraay dañuy garaaw léeg nga dem ñu ne la diwa la man li ma lay wax man si am preuve bu leer maa nga a déggante nañ sa téléphone si loolu baxaw moo toog woo ma téléphone nee ma ngir yàlla bu la bu booy booy jël ko ñu woo ñu ma mu woo ma ñu expliqué benn numéro dama ko këwru booy booy sama doom la 363 44 27 loolooy numéro ngaaka mu woo ma si numéro boobu ñu expliqué si ma ne ko booy li la moo la ko jaral nangam ngaax di ma expliqué ay yoo xamante ni gaañ man mënatuma laaj booy bi te booy bi tey Sénégal bu nga xamee man maa tax comprendre en retour am na yu bëri yoo xamante ni non mënoon na si boole ba bañ a boole pro gem bi dafa ndaw ñun ñëpp a xamante barki yaa fu fu di dem fu gason di dem fi Canabasse di dem dugg loolu danoo xamante quoi xamante nanu meen xam nga boobu daal gaan na nekk si jàmm rek donc album bi sa comeback bi sa comeback bi yaa ngi waajal ay affaire est-ce que mën nañu am ay date aussi mën nga ñu wax fitri yi nga xamante ne prévoir nga ko nga jox ñu date bi nga xam ne kañ lay génn quoi. non pour l'instant nag moom mënuma joxe date quoi mais bon ak Covid 19 bi jotoon nañ jël euh, su kii fële dajal Sorano pour pour def concert kii bi concert album bi waaye damay damay damay noonu et tout mais xam naa ak ak feebar bi yooyu yooyu yëpp da xam da nga koy tee xaar quoi waaw ba instant bi ñi gën a nekk si mixage yi xam nga di gën a dégluwaat son yi. xam nga di gën a xoolaat titre yi waaw xam naa moom incha allah du yàgg dara waaw dinañ joxe date dina génn quoi. Hmm. kon donc instant bi hip hop Galsen bi mën nañ jàpp ne Prophète ñëwaat na mu ngi waat ci game bi ok di waajal ay album bi nice ok mais aussi dama bëgg benn témoignage quelque ci sa gars yi nga xam ne ñoom ngay àndal quoi ah mais ana Latir Latir seen naa ko fi léegi quoi mafia bi waaw. waaw mais sama gars wax leen. Kaba yow naka mu nice. ajana nii lépp affaire. noo tudd. man Liko waaw. ok yow gars yi prophète nga wala fans prophète nga. man partenaire am laa léppam laa. waaw man moom dama koy soutien saa su nekk waa nice. Eh, lu tax yéen prophète bu tooñee sax ngeen fayul ko quoi yéen. waaw parce que mbooloo la ñu wax mbooloo mooy doole. waaw parce que loolu la ñu wax quoi. grande grande carité bi la ñuy dund quoi dëggantaan Ndiaye. waaw boo laalee kii rek laal nga kasa des. boo laalee kii laal nga sa des bro naka mu. sant yàlla bu baax ànd ak yow sinon lu la booleeg prophète. waaw suñu lépp la suñu rappeur la bu weesoo loolu suñu partenaire ra waaw waaw ñun mooy moo ñuy bëggal quoi waaw ñun dañuy dund hip hop bu muy def quoi dañ koy dund. ok jaajëf mais wuy ma bu mu am ci wax rek na ngeen génnee xaalis parce que hip hop hip hop musique dafa métti ay production la ay réalisation la video dafa métti dugg studio préparé toog bind enregistrement bi dafa métti donc xam nga. financièrement dafa metti man li ma leen di wax mooy xam nga bañ a yem ci ànd bi nii wax nii mais fi finalement gars yi di ko financé waa Big Town ah. gars ñu si jàpp de. waaw man sut sama kambaak bi nii gars yi jàpp nañu si bu baax a baax a baax waaw ak sëñ Bamba gars gars moom xam nga man aw ma seen fay quoi waaw waaw. dañ lay gis ak Latir Ngooñ Latir ñëpp xam nañ ko ci ci ci Dakar ci waaw donc lan moo sa relation ak moom. Ngooñ danoo bokk Grand Dakar xam nga mu yarnu mu nekk suñu mag. comprendre après yàlla yàlla dogal euh, nekkoon na si ay tolof tolof yàlla dogal mu ñibbisi ba mu ñibbisee teg na benn projet bu tudd OCB xam nga euh, projet boobu je pense que képp kuy doomu Grand Dakar euh, war nga si jàpp surtout ñun ñun ñi nga xamante ne dañoo dëkk si gox bi mais yàlla dogal tamit ñu am fi tur ko comprendre kon donc lépp loo xamante ne day doxal Grand Dakar xam nga ñun duñu xool kan moo def mais dañuy xool yow lii ngay def comprend mu nekk ba benn projet bu bu nice képp koy doomu Grand Dakar muy mag muy muy xale xam nga war nga si dugal sa loxo comprend loolu moo ñu boole xam ñu siy liggéey nank nank di teg ay jéego jubale paas ñi ngi dem si jumaay Grand Dakar bi Almansour bi raxas ko bale ko xam nga yóbbu yóbbu leen ay masque vendredi bii paas ñi ngi woon jum jumaay mbaykan bi xam nga à chaque fois ñu ngi koy xam nga di dem si école yi demee noonu je pense que loolu daal lu rafet la quoi di woo bépp autorité bu bu Grand Dakar tamit boo ko mënee jàppale si si projet bi te yàlla tax te bañ si xool ba benn retour xam nga jàpp si te yàlla tax quoi. Hmm. yi quoi Grand Dakar fii autorité ci combat yi est ce que ñëw ci génne ci Covid bi est ce que génne nañ joxe si xaalis def ay may ay masque wala affaire yooyu parce que sànq yaag Simon rek nga ma wax expliqué. waaw waaw euh, ñu ngi koy défense ah, que xam ñun moom ñun moom nekk ñoo xamante ne xaaruñu si kenn dara. xaaral si kenn dara te te aussi bien bien bon euh, man je suis apolitique man affaire affaire politique nekkuma si quoi bien vrai que nag am naa sam benn partenaire bu ñuy jàppale fii di wax waa Grand Dakar ñu jàppale ko ñu votal ko muy Mame Thierno waaw maa maa ngi woo jeunesse bi yëpp ñu jàppale ko parce que tamit bu euh, gis nga sunu maire bi bi fi nekk xam nga liggéey lu amul dara lu mu def Grand Dakar quoi kon donc je pense que changement war na am te changement bi gën si Grand Dakar mooy Mame Thierno waaw. saa nee na il est apolitique te mu ngi politique dégg ngeen message bi mu wax. saa yaa ngi politique. mu ngi nekk mouvement génération Diop. ak maam moom lañ bëggoon instant yii yor dana nekk. donc prophète lancé nga sa message comeback gaa ngi xaar sa comeback bi euh, tey lan mooy sa dernier message ci hip hop Galsen sama dernier message waaw mooy gars yi euh, gis naa ni que namoon nañ ma trop mais ñu xam ni que man maa leen gën a nam quoi man dama sama jëm bopp dama namm micro bi xam nga dama namm xam nga band bandulu bi njaam bi xam nga <laughs> si scène bi xam nga ba ñoom këli gars yi ñoo diree ko xam nga waaw ñu ñëwaat yoole gem bi nag waaw <laughs> waaw mais bi foog nga ñamal gars yi ne leen prophète bi démb mooy bi tey waa dañu bëgg benn freestyle bu ndaw xam nga waaw mais laataa loolu brodo bi bëgg naa bëgg naa ko jox micro mu def benn témoignage parce que xoola moom it hip-hopeur la te déglu naa benn single boo xam ne yéen a ko defandoo ensemble mooy lu nice quoi ok bro. yes ziar na la ziar na lu bëree bëri waaw comme li nga wax rek saa waay bor xam nga moom lépp moom moo ko ji moom moo ko ji quoi ku nekk moom li nga ji rek loolu ngay góob te nit ku baax la nit ku nit ku yëwan macha allah lu mu am da koy bokk a gars man bi ñu xamante yàggul quoi mais sérieusement tiis nañu relation yoo xamante ni dama ko jàppee comme sama frère. te gros yi muy àndal yëpp dañuy gisante mais tam gis naa ne ñoom ñëpp mooy loolu borom baax la nu gars yi jàmmaloon jàmmaloon seq ak ñëpp quoi jàmmaloon seq ak ñëpp te jobkat la. gem bi kàmbaak bu mu wax nii nii du ay caaxaan parce que man maak moom dañuy dem studio dama koy dégg muy muy dóor ay affaire damay xam ni kii waaw pare na quoi gars na nañu xam ni waaw am na ku nekk ci gannaaw te mi ngi ñëwaat. yaa man mi ngi gën a gaaw. non borom yi moom gars yi cool lañ mais ku laal prophète la ñuy bañ. gars ku laal prophète la ñuy bañ quoi dañu bëgg benn freestyle bu ndaw nga defal ñu ko xam nga waaw. rappeur la. mi ngi tudd Eminem xam nga kuy freestyle fii Sénégal moom moo la mën waaw. <laughs> kay. pro moo la présenté capitaine ah mun naa xam ne capitaine moo la présenté prophète nee na kuy daax freestyle ci Sénégal yow yaa mën loolu mën nga ñu ko prouver. non ça va dafa baax di ko wax rek boo xoolee daal gaynde loolu ñu naan Grand Dakar xam dafa xawoon move ci hip hop te tey jii nii bu ñu nee Grand Dakar ci hip hop boo génnee prophète bien vrai que am na ay jeunes yu fi nekk mais boo tey booy amaguñu opportunité boo xamante ne ku nekk di nga mën a jël sa yoon mais au moins mu ngi ci ay projet yoo xamante ne jii dafa pare pour fësalaat Grand Dakar ci hip aussi tamit pour bépp ndaw boo xamante ne yaa ngi ci Grand Dakar di yëngu ci hip hop nga mën ci gis sa bopp quoi mais buuru saay fay buuru firi saay loolu gars yi ma ko collé rek mais du si dara. ok mën nga ñu ko woon tuuti ñu xool mosal ñu. <laughs> yeah freestyle la may teg yéen la seen clip <laughs> man damay réel du ma fenc seen clip yaa ngi sol yére bu ñuul rab su ma koy teg man fay képp lay jàpp suul li may teg noo amul booy bi noo demul gis nga ni nga toogee rimi sama bopp du waañ te fa laay toogee rimi maa ngi koy teg day ñor noo du cookee bëggeel prophète mi ma koy jox indil sa goy ibu prophète naa ni garab pharmacie man li may teg ci rab bi arekaar bi pharmacie yëpp naa la dem nan la MNM rab ba dakk leem di nga jox la fem ay ca ci Yesaay wala baax wala baax yesaay yesaay yesaay yesaay et mooy Grand Dakar ah. donc xam nga ay jeunes talents yu extraordinaire ñoo fi nekk aussi tamit di wax promoteurs yi baay promoteurs yi gars yi lan la ñuy xaar ñoom Simon xam nga ñoom Malal Taal yeneen gars yi nañ dugg produire gars yi. ah gars yi dara mais moom man man li may wax rek bu booy moom xam nga ñoom xaar nu kenn si xam nga si si lenn peut-être ni que nag bu leen liggéey bu boole ak kenn garaaw loolu day am quoi. mais yow yaa gën a xam bu dee producteur rek fii fii nii si hip hop amul amul ñun suñ lépp ñun ñoo koy defal suñu bopp bien vrai que na ay ngay jël ba benn bit kese war war ko dem jëndee cinquante mille xam nga dafa métti quoi te xam nga jàppoo si dara mais lu ma leen wax daal mooy mooy ni que ñu jàpp rek gën a gëm ñu xam ne hip hop kenn moomu ko santul Ndiaye santul Diop waaw ni seen morom yi def def ba fël ñoom mën nañ def nu ko raw ba fël parce que talent bi yëpp mi ngi si ñoom waaw mais après la suite yàlla baax na quoi. et puis yow sa fël moo gën a métti parce que yow bi ngay ñëw Facebook amul. Twitter amul affaire yu bëri quoi réseaux sociaux ni mu bëree donc da nga ñëw tëll ak sa talent bu extraordinaire gars yi naan pro pro pro di fës devancer nekk ci grand yi ak yooyu mais tey ñoom am na ñu benn sens mooy Facebook mu ngi fii Twitter mu ngi fii et puis ak commercial digital bi bon c'est facile quoi. waaw li si des mooy job rek liggéey rek fii moom ku job job. waaw ku joob ku joob coob ah, waaw waaw moom gem la rek di ma la wax sànq mooy kenn moomu ko waaw ñun euh, sama génération man tamit ay ñoom kii el phénomène yi demee noonu su man à chaque fois damay Fata si loolu ko waaw parce que ñun tey bu ñu ganee xam euh, Fata jeune si lu bëri mooy si par rapport ak hip hop feeling bi nekkoon comprendre nga euh, mu koy tegaat sax mais yéen nga ni da koy tegaat lay tegaat waaw dugal naa fa sama ñaari booy yu si war a dugg pour dem ñëw ñëw jëli ko xam nga da <laughs> noonu eh, Fata Fata prophète nee na respect nee na big up ci ci ci ci ci hip hop feeling bi nga xamante yaa ngi koy def pour promouvoir jeune talent yi xam ne ñu ngi ci Galsen donc prophète nee na Sapo ñu ngi la ci remercier di la sant di la gërëm di sant 2STV yi aussi mais tey sa sa freestyle bëgg gars dañu namoon prophète quoi gaa yi na moon prophète lu ma def xeeb ko si rap mën ko def ko si jàpp yàqu sotti si ndap ni nga say jiitu nga tap pro back na back tal tel say AOI e, seen i teen du am baak ow la zone mi mbele mbele du tere wane seen cuune seen cere yéen pour yéen gàllaaj mooy bëre li ma yor big la du kere ak akama mën na di wane lu màgge bokk lu gone di foowe daanu sa kaw ni ba pare yokk sa dole booy ngane lu ma def xeeb ko si rap talent be bëri tey da ngeen di rap te kenn du gis ni lamp ngor bu fay man damay rap di joxe aadiye nel ak sa laaj ma zapata never change duma ma kakatar père aada tey di génnee gën def pan ñu gis réew rap dafay dee taj a ma teggi tànk ndax du bénéfice te du bénéfice bu may laal da toxul cannabis. yes eh, wala wala wala boog ok yes. fi la ñuy jeexalee seen clinique la woon ci biir Grand Dakar xam nga ñu ñëw Big Town fekk si woon fi benn hip hopeur bi nga xam ne kenn dootu ko présenté dégg ko nii ni fan si nañ ko xaar hip hop Galsen nañ ko xaar et puis aussi may ñaax waa Grand Dakar ñu jàpp ci xam nga parce que mi seen doom la aussi xam nga fu mu dem hip hop Grand Town Big Town xam nga lay représenté kon na ci gars yi jàpp mag ndaw gars yi waaw euh, maa ngi nuyuwaat gaa yëpp xam nga di leen bëggee bu baax a baax di nuyu monde hip hop yëpp di ñaan tamit euh, feebar bi di Covid 19 bi yàlla def xam nga mu jeex tàq xam nga si baag Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam yaa maa ngi nuyuwaat ñëpp xam nga di bëggee surtout sama famille ak di bëggee sama mère tamit bu baax ndax xam nga tolloon naa si ay jafe-jafe yu metti sa trois ans yi mais.